asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 27 mai 2019 ñu ñëw gin ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag yëglikaay yi tey sunu lamb la ñuy xëy rek yëglikaay ba daal xëy na tey ci xëtam mu njëkk wan ñu Jules Baldé ak rakk ja ama Boy kii di Zale Lo tamit ak Boy Bawol mu mel ni loolu moo gën a fës ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb yëglikaay bi nag Jules Baldé la xëy tal seq ak moom waxtaan Jules nag Tafatine lay dànkaafu nee na ko jàppal lii ma lay wax yow Tafatine moom saison bii nu ne day boo jàppee ne tëj na te sa combat ak Ama Baldé amul moom jàppal ne balaa amati day dina yàgg lool lool lool moom bul ko xaar ndax nag su keroogee moom dañuy tourner sa paas rek dëpp paas ba wan la ginnaaw dem suñu yoon wuri leneen donte xëy na pa Abdou Fall sax mu ngi leen di wax waxi tafatin pour saison prochaine daal waaye daa mel ni Jules Baldé moom loola d'accorduñ ca tey suba waxi noppi am na ñoo xam ne nag moom mu ngay wax ak ñoom muy Gris Bordeaux Modou Lo ak Bombardier Jules nee na leen yéen ñett ñi moom jàpp leen ne déwén yéen ay potentiel adversaire u Ama Baldé koo a jàmmaarloo ak moom te parewut ngir nangu rek Jules Baldé mu mel ni tey daal xëy na di wax digganteem ak Siteu tamit wax na ca la mu xamle daal mooy li leer ba leer day combat bu waru ko a am la te amul loolu moom nekku ca sax ñoom ñu cay dem ak dikkal ak yu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom seen écrit bu nekkoon ci ay problème moom daa mel ni léegi nag taxawaat nañu ba jéggi jafe-jafe ya dem seen yoon muy crise bu fa amoon muy roog énergie sunu làmb xëy tey ñëw dinu ko wax keneen koo xam ne nii moom dañ ko doon télé toowal ci weekend bi nu génne muy père booy bambara ca seen tv mu mel ni lig ni ko laay moo àndoon àndoon ak partenaire am di def lu mel noonu yëglikaay bi du sunu làmb nag nee jàppal day xaalis ba day takku woon na trop millions ya ñu nga doon ñëw ka jëkk mooy ministre yow réew mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum tàggat yaram muy Moussa Matar Ba moom un million la làmb ci jibaam dugal ko ca loolu nga xam ne moo doon téléthon ba ñu ne déet ne waay Wally ak waa Faramaren groupe ñoom itam yëkkati seen sept cent mille dugal ko ca rëg-rëg joxe kii nga xam ne nii moo di sa moom itam joxe na fa cent mille francs mu mel ni ki daal mbir ma moom sot nañu ko ba nga xam ne nii day loo ca mën a dégg daa mel ni kon mujj na am ay xewal loolu moom la yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey wax nu ko ci kii nga xam ne moo di sunu père booy bambara ak téléthon ba keneen koo xam ne nii moom wala ñeneen ñoo xam ne day ay jàkkaarloo organisé nañ ko ka ca jëkk moo di Fallou Ndiaye dîner de gala ba mu defoon ca parce mu mel ni nag mbir ma neexoon na lool mu mel ni tukk subun la woon saañ ba réer jàppal yëglikaay bi nee na day ndogu la pilis reer waaye loo ci mën a dégg daal affaire ya moom daa mujjoon sax nag débordé ndax boo bëggee dégg dëgg préparé woon nañu reeru téeméeri nit waaye mbir ya daal daa mujj dépassé loola di dem a dem ndax waa làmb moom ku ne xam na leen ñëppay bëgg a ñëw yëglikaay bi moo nu ko wax waaye jàppal dut daañ ba nga xam ne nag moom la ñu tudde drapeau ba day yëglikaay bi di suñu lam ne ne ba muy ñëw day ànd na ak délégation boo xam ne day foo takk rëyaay ga daal weesu na ko ña ku gunge woon bari na lool ñoom ngaaka bi leen ne sax gis nañ leen fa mu mel ni ngaaka mooma day jagleel na li nga xam ne mooy làmb ji am son waaye góor su ko Tyson 2 tamit ñu mel ni ñoom ñu war a bëri le 27 juillet day ñu nga foon mu mel ni ki kon mbër ya mu tëggoon yëpp kër day daje woon nañu fa Fallou Ndiaye moo def lu ñu koo xam ne moom woowoon na ay mbër ñoom tamit mooy sëñ Modou du muy diggante boogaa bu faas ak général bu mbaaw ñoom ñaar nag seen combat ñoo ko war a bëri seen face à face day bëri ki démb la woon waaye yëgle kaay bi ne day tuuti kon rek ab xeex am ca ndax nag yaram ya moom tàngoon na ba yegg ci jër ki aw yaramam bëgg a tàng moom moo di booy bawal booy bawal daal fi mu nekk nii moom la mu bëgg daal mooy wan marle biddiwu bëccëg yëgle kaay bi di sunu lamb moo xëy dina ko wax moo tax nag booy bawal tayalu ca dafa dem jëli sàlloo ngir nag mu jàppale ko ci lii nga xam ne moo di combat wala mu wan ko bokk ni muy daane kii nga xam ne nii moo di booy bawal loolu sunu làmb xëy tey dinu ko wax mu maay mel ni ki nag jàpp leen ndogo yi takkar naa si na fan yi mbër yaa ngay def social dem ca Leewtoo TV général Malika mu nga fa doon def waaye ki nga xam ne moo di guy gi tamit mu nga doon def mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom gaa yi mbaax lañuy ñuy wër ak i tuyaaba kon li leer ba leer yàlla na yàlla nangu lépp lu waaye di def ci koor gi ci ay mbaax waaye lépp lu waay juum itam yàlla na la ko bur yàlla jéggal mu mel ni ki weeru moom comme niñ koy waxee rek promotion la promotion baax na waaye lii nga xam ne lii day moom la lig Nicolas def bërki démb itam lu jara wax la ndax nag booy bambara téléthon ba day daa mel ni mujj na doon njariñ ci moom ndax millions yi ñëw na waaye yal na yàlla def booy bambara wér waaye ku wéri di yal na nga wér ku ne ci kaso yal na nga génn ku am na la metti sax taala njaay yal na loolu wàcc xol bu sedd yaram wu sedd du mën a ñàkk aysa lu xew tey da ngaa xaw a tayal de asalaamaaleykum mbokki sur Leewtoo TV yëpp ñu leen nuyu bu baax leen ziar di leen jaajëfal leen wax euh, namoon nañ leen trop euh, weekend bi guddoon na depuis vendredi ba léegi ñu ñëw ak yéen ci seen revue de comme ni ñu koy defee chaque jour si ànd sama mag sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssa Faye madame Nia sama rak sama xarit comme ni ñu koy waxee ah maa ngi lay nuyu waaye ay sa nag xam lan moo neexam wala lu jara wax mooy nañu nuyu waa Point ay sa tey fii ñu nekk moom mooy point un jóge nañ Sacré kër toxu nañu point un yàlla nañu toxute li jig kon Sacré kër ñu ngi leen di nuyu di nuyu ki nga xam ne nag moom moom commune bi wala mooy maire bi moom lañ ko dénk ñu koy nuyu di ko wax ne waa Leewtoo ñëw nañu biir Sacré kër di ay gan yu bees point un boog di moins point un waaw euh, dañuy nuyu waa point e rek euh, di ñaan euh, dal fi ak jàmm ak salaam parce que Babacar nit ki moom noonu ngay ñaan fi ñu nekkoon peut-être dem na ba mënatul contenir équipe bi ñu daal di toxu fi nga xam ne nii mooy point E di ñaan yàlla rek dal feeg jàmm am fi loo xam ne ni moo raw su moo sut suñu njot incha allah ñu dugg si li nga xam ne nii mooy waxtaan bi daal dem ci Jules Balde mi xëy tey di nekk ci carrière rakkam bi di Ama Balde ñu gis ni ren combat jafe na si moom mais nag mi ngi xamal Tapha Tine bu ko Ama rëccee ren moom na si génnee xelam te xam ni Ama ay bëtam teg na ko ci ñoom Gris Bordeaux Modou Lo ak ñoom Bombardier pour déwén incha allah. waa si loolu la xëy wax loolu nag comme li ma li ma lay wax rek Ama rakkam la mooy conseil di entraîneur am taxawu ko comme ni ñuy waxee parce que dañ ne ginnaaw ginnaaw bàyyi euh, taaw mooy dogal te tey Zil la yàlla def mooy xalifa Fallaye Balde yaakaar naa ci ni ñu ko xamee. waaw kon ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal taxawaay boobu taxaw yàgg mook bépp kilifa mu nga xam ne yore nga njaboot li mu wax nag si diggante Tafatine ak Ama kani bu ñu bëreewul ren bu yóbboo ne dootuñu bëree wala du gaaw parce que ñoom Gris Bordeaux ak Bombardier ñoom Modou Lo lay xaar man dama naan loolu moom am na droit wax ko waaye mbër mi nga xam ne dem nañ ba dox seen combat nga d'accord ne war ngeen a bëree te nga daanoon ko yaakaar naa kooku rëcc rëccante amagu fa te Tafatine daan na Bombardier yaa ngi dégg bëreegul ak Modou Lo bëreegul ak Gris Bordeaux te ñooñu ñooy ay adversaire am Balla Gaye daan na ko amel na ko avance Eumeu Sène mook Tafatine bëreeguñu Tafatine ay adversaire am ñooñu la kon dama naan Zil xëy na wax na rek wax na xalaatam wax na li mu bëgg waaye dama naan Tafatine Zil Ama Baldé Lac de Guiers 2 Boy Niang Gris Bordeaux ba ci Modou Lo gay Balla Gaye ñii ñoo bokk fi mu nekk nii urmbal bu ñu nekk xaw ma xam nga urmbal wala déet urmbal moo di roq maanaam urmbal dañ koy sàkkit mu wër nga defal ko bunt nga dugal fa ak jur wala nga denc fa dara loolu lay olof di wax urmbal boo bëggee dégg-dëgg moom ñoom ñoo ñu ma la limbal ñoo bokkub urmbal am na ñeneen ñoo xam ne nag ñu ngir am di ñëw ndax guy gaa ngi ci yoon wi Yékini Senior a nga fi ñëw Garga ngi ñëw Gris de Reug ñu ngi ñëw keneen ak keneen a ngi ñëw buñ ko dee lim duñu jeexal waaye jàppal ne moom Zil ba euh, Ama Baldé ak Tapha Tine ak Gris Bordeaux Modou Lô Bombardier ak ñooñu bañante mënatu fa am fi mu nekk nii xanaa kay ku ne nag am nga droit xool li la arrangé nga def ko ndax nag pata sama gënal ñam bi ay satu yàgg naa la ko wax buñ ci tëjee taala njaay rek jàppal ne avocat kaama baaxul dañuy jógee Pikine daal dem fële ca parcelle ci waa Rock énergie nga xam ne cool yu bëri woon na fa diggante jafe-jafe yi mbëri amoon ba ci seen AG bi yëpp mais tey ñu ne Rock Énergie surmonté na li nga xam ne mooy crise boobu xale yi dinañ dellu amaat ay combat di bëre coow li fa nekkoon yëpp li nañ ko mu nekk loo xam ne ni war na mën a tax ñu jeexal saison bi si jàmm ak salaam. waa loolu moom dañ ci naan alhamdulilah ndax comme li may wax rek man damay bëgg fu nekk rek yàlla na fa jàmm di am ay satu te defe naa ku ne loolu nga li nga yéene sa bopp moom nga war a yéene sa moroomum doomu aadama tey Rock Énergie écurie bu nga xam ne bi ñu ko sañcee yàggul yàlla def ay champion ñu formé leen fa tey ba mu jur sax yeneen écurie ci biir parcelle ñooñu di ay mbër yoo xam ne ñu ngi fay ko tey bu ñu xoolee ñu nekkoon ci ay jafe-jafe ba xale yi amoon problème bu bëre ñu xëyaat tey ñu waxtaan def seen AG fal président muy Khadim Gadiaga ñu gis ne kon crise boobu ñoom romb nañ ko mooy li olof di wax rek réeroo amul ñàkk a am ñu leen di ñaanal rek ñu ñu koy ñaanal écrit yépp ah kani rek xale yi di bëre mbër yu mag yi di bëre parce que parce que mbir mi xam nga loolu mooy tax écrit bi di mën a dox te mooy tax yeneen Modou Lo juddu fa mooy tax école Balla Gaye yeneen Balla Gaye juddu fa Fass ak neneen ak neneen kon daal li am solo mooy loolu moom ak cant ci Rock Énergie waaw bu baax a baax waaye sant tamit yaakaar na ci képp ku nga xam ne nii doomu parcelle nga wala ngay supporter écrit bi di Rock Énergie waaw Babacar ñu jógee fa dem si xew-xew yi nga xam ne amoon na ci week mu nekkoon ay face à face yu mag Fallou Ndiaye Luc Nicolaï def na face à face Serigne Modou Niang tamit def na face a face mu nekkoon ay événement yu mag Fallou Ndiaye daal defoon euh, galaawam bi ñoom Tyson de Sock Franc Nguer mu nekkoon face a face bu mag bu mujjee ëpp loxo Babacar waaw macha allah parce que tamit ñun teewoon nañ fa boo xoolee comme ni ko yëglikaay bi waxee euh, de maanaam la fa nekkoon ci ay nit takku na lool macha allah mbëri tamit ñëpp ñëwoon nañu parce que boo xoolee comme ñoom li ñu prévoiroon cent personnes maanaam téeméeri nit mais nag dafa lay tollool xam nga mbër yooyu yëpp bu la regroupé sur place yaa ngi dégg mbër yi mu tëgg yëpp ñoom góor a soog comme ni nga ko waxee ñoom kéwél ay ñoom muut ja ak mbër yu ndaw yi ci biir nga woo leen ci benn place yaakaar naa ne ah foog mu foog mu mbooloo mi am na mu demee sans compter waa làmb ak ni ñu mel ak ni ñu xëree ci làmb moo lay wan ne bërki démo moom foofu ca parcelle vraiment ah Fallou la mu fa def itam ñu koy ñaanal rek parce comme la ma wax kere rek li nekk ci àddina ay satu mooy nit ki duñ la naw ci li nga man ah, a rafetlu doo fa gis débordement doo fa gis doo fa gis nangam man loolu dama koy saluer encore une fois parce tamit lu rafet ku ko gis da nga koy wax te loolu dañ ciy ñaaxaat mbër di ci ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñoo encadré làmb pour que yooyu mën di am parce tamit euh, mu génn bëri ki démb nooy na trop Aïssa waaw. waaw Luc Nicolaï tamit defoon face à face defaale téléthon pour ki nga xam ne ni mooy suñu papa Boy Bambara mu daal di fay tamit xaas bu takku mbëri tamit contribuer ci li nga xam ne ni mooy téléthon bi mu nekkoon tam rendez-vous boo xam ne ni amoon na njëriñ torop torop torop. waaw loolu tamit dañ koy rafetluwaat rek mooy rek baax daal moom lu ko waay jënde ak dimbali te yàlla tax dara du ko wecc Aïssa looy def rek def ko te yàlla tax te dimbaliku ne ci jafe-jafe dafa am solo te suñu père booy ba am dafa nekkoon ci làmb bëre ba bàyyi bëre macha allah yàlla na gudd fante wér di encadrer ay xale yàlla def tey feebar dab ko bu ko dabee nag ñu dem ba benn moment ñu xëy na gis ne euh, loxo jotewul ginnaaw wala daanu dajul suuf Luc Nicolaï nekk promoteur nekk bailleur ci làmb ji di dimbaliwaate di tëgg ay combat tey mu am initiative def loolu vraiment du ñu mën a def lu dul ñaanal loolu am na solo ndax gis nañ ñi ci dugal seen loxo ñëpp commencé ko ci ministère sport bi monsieur Matar Ba moom itamit mu nekk nit ki nga xam ne encore une fois ñu waxaat ko a disponible ci Sénégal man man maanaam bi ñu defee présidentielle ba pare def remaniement moom man wéet ma la wax man laa ngaase di ñaan yàlla yàlla na ko Macky Sall reconduira ci que gis nañ ne que ñëpp la seqal moom yëkkati na un million dugal ci tamit nekk xale boo xam ne tey ci réew mi gis nañ li muy def ci social ci côté yëpp parce que euh, dañ ni nit ki waxul maanaam ni mu mel waxul ni mu mel mais ni mu jëf la mel. Wally Seck yi defe naa taam nañ ko ci moom moom itam mu jël mille dugal ci mbër yi nga xam ne dañu cey bëri muy ñoom caat ak ñoom Quench ak rëg-rëg ñoom jën kay rek ku ne yëkkati sa alal def ci muy loo xam ne daal ay sa daal nañuy dimbalante te yàlla tax quoi ku ne ciy jafe-jafe ku ne comp ca la nga yor jox ko bu ko defee yàlla mën naa def mu sulaase wu kon Luc Nicolaï mention spéciale moo ko waa Luc Nicolaï en ko yëpp e ñu jeexal euh, Babacar revue bi ak ki nga xam ne ni mooy euh, booy Bawal moom it mu war a dëdmal combat digganteem ak euh, Marley mais tamit xam na fi ko combat bi war a yóbbu ba tax na mu daal di dem ki nga xam ne ni mooy Zallo pour rek mu prêter ko main forte ci combat bi nga xam ne moom lay waajal. waaw loolu day yoon la xel na ko ndax ñoo bokk Bawal <laughs> diggante ñoo bokk entre ay Touba ak Néewraan ci zone yooyu lañ dëkk ak Réfane ñoo bokk fu ñu jógee kon tey bu demee ba moom parce que Boy Bawal bi muy mujj a bëree combat ñàkk. mook ki nga xam ne nii mooy ama neex marle ñàkk ko moom mujj mook jéen kayre loolu yëpp daaw la woon ren ñu war a leen na boole ñu war a bëri di ay xale ku nekk bëgg a dem defe naa nag kon loolu mu def xel nangu na ko dem jëli zàllo koo xam ne yaakaar naa ne ku ko ku ko déglu ci bëre xalaat naa bu la tegee ci aw yoon war nga mën a boo awee ci yoon woo yaakaar naa war nga na la mën a jural njariñ kon yaakaar naa moom Marley loolu moom ko di mooy sa euh, booy boobu loolu mu def xel nangu na ko ah Marley tamit mu nga ca koyam di préparé ndax kër dem nañ jël ko ndogu ca géejawaay booy boobu itam dinañ ko jëli parce que olof moo ne ku fóotal mbëtt rek da ngay roccil bar Assane Ndiaye nag moo fa jaar muy làmb joo xam ne tamit yu jar a bàyyi xel la ndax ñaari technicien koy bëri booy bawal ak Marley seen combat boo xoolee xalaat naa di nga fa gis bëri bu doy doy waar waaw lu leer lan ma ciy profité di nuyu Assane Ndiaye tamit ak waa Bol Production bi yëpp parce que moom tamit mu ngi dëgmal journée yu neex a neex rawatina fëgala ak ki nga xam ne mooy double moteur ak yeneen combat yoo xam ne nii mu ngi ci kanam te mu ngi war a dem sur lendemain Korité fa nga xam ne mooy stade Elimane Fall ba ca Njaareem tëgg fa làmb ju neex a neex moom Assane Ndiaye waaw Babacar lii la ñuy xam ne ñooy suivre Leewtoo TV mais balaa boobu dañuy nuyu Maam Talla suñu Baye Fall bi Chéri Lébou di nuyu ci ki nga xam ne mooy montage bi di nuyu équipe Leewtoo TV bi yëpp di leen jaajëfal commencé si tonton Diaw jàpp si caari suñu DG wàcc ba ci suuf ñoom moom maa ne Iba célibataire bi yande di nuyu équipe bi yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu tamit waa mur parce que tamit suñu dëkkandoo lañ di di leen jox rendez-vous suba rek incha allah. waaw waaw waaw waa mur comme ni nga ko waxee ah, ñu nuyu leen tamit ñoom duñ leen fàtte parce que olof ne na ñu bokkuteen ñooy laxasu ay goj te miir ak léewtoo ñoo bokk ndey ji jur wala baay bi mooy calis lépp foofu lay dellu siwaat kon ñoom matoog ñoom ki nga xam ne nii moom mooy Dior Babacar ak ñoom Cédric ñoom Kitaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu équipe Leewtoo bi comme ni nga ko waxee tonton Diaw ñoom père Massar wala grand Massar ñu koy nuyu di ko ziar père Alsan di nuyu suñu tante ya ca Tëngéej ak ki ci fii waa di nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm comme ni nga ko waxee di nuyu taal caméraman bi ak monteur yoo xam ne ni mooy Ousmane ñu koy ziar baax baax di nuyu ñëpp mais di nuyu itam Balla Gaye taal bi sëñ Babacar si nekk ca Italie maa ngi koy bu baax a baax ak ñoom Fatma Fall ñoom Khadiros Ndiaye tamit maa ngi koy nuyu ci Allemagne mais tuuti yaay saa tamit du ko fàtte di ko nuyu di ko wax mention spéciale di nuyu ñi nga xam ne ni daal ñu ngi suivre Leewtoo fu ñu mën ne ci àddina bi rawatina suñu soppe yi nga xam tamit ñu ngi fii ci réew mi ci Sénégal di balu ñëpp ak Aysatu di bal ñëpp ak di wax ne que jàmm yal na ko yàlla saxal fi nga xam ne mooy Sénégal mais commandant Fall Aysatu du ma ko fàtte maa ngi koy nuyu bu baax a baax depuis quand jël jóg waaw. waaw Babacar